dafa disparaître sama doom dafa réer sama doom de dama ko yónni woon ci boutique bi rek mu dem gisaatuma ko sama doom dafa demoon jàngi waaye ca ko mujjee gis ba fii may waxee yow sama doom dafa demoon foo yi sama kër voisin ba après gisatuñu ko ñii nee nañu dañuy mujjee ci seeni doom gis ko du ànd ak bakkanam ñii ne dañuy gis ko te du ànd ak ay bëtam ñii ne dañ koy gis du ànd ak yenn ci ay organam wala yi sax ab boppam mbokk yi salaamaaleykum seen mbokk Serigne Bara Kébé ni ngeen baaxoo dañu xamee ñuy indi waxtaan yu mel nii te jubluwuñu ci lenn lu dut laabire nit ñi ak yee leen te fàttali leen comme ni ñuy fàttalee suñu bopp. tey ñu fas yéene ñëw ci disparition yi nga xam ne dafa bari trop jamono jii may wax ak ci réew mi te ñu ëpp ñu disparaître ay xale la ñuy doon diggante zéro ci at ba ci ay juróom-ñeenti at xale yooyu la ñuy soxla yu ci ëpp moo indi disparition yi am. ñu gis nañ itam ay étranger yu baree baree bari gis nañ leen ci biir réew mi ñu ñu woote ak sëriñ wala ay féticheur bokk nag ci quartier yu uute yoo xam ne dañu fa nekk di jëfandikoo lenn loo xam ne ñooy soxla gone yu mel noonu bokk beneen bi ci topp itam ñu gisaat ne ñenn ñoo xam ne suñuy doomi réew lañu te xameewuñ leen woon yenn yi ñu dem ba adapté wu ci dugg ci yenn di def ay fétiche wala ñu def ay sacrifice ngir bëgg am alal wala ngir bëgg baaxoo nañu di gis lu mel ni événement yu mel nii buy am lu mel ne tey euh, élection mbaa itam événement yu mel ne sportif yu mag yi yu mel ne làmb yu mel noonu yu mel ni disparition yi dañ ko baaxoo woon di gis mbokk yi yenn parents yi disparition yi nga xam ne mi ngi am ci xale yi lu ci ëpp en quatre-vingt pour cent yéen da nga ci am responsabilité police def na déclaration gendarmerie def na déclaration ngir ngeen sàmm seeni njaboot bàyyi leen xale yi ngeen di jël di leen bàyyi ñoom kese ñuy dem di jàngi bàyyi leen xale yi ngeen di jël di leen bàyyi ñuy fowi ci mbedd mi te ñu am nekk en sécurité bàyyi leen xale yi ñuy jël ñuy dem di fowi ji ci kër yi ba yéen n'importe heure wala itam di leen bàyyi ñuy fowi ji ñoom kese ñoom dong ñuy dem loolu mooy indi disparition yi nga xam ne mooy am képp koo xam ne amati nga sa doom bëgg mu dem jàngi bu jàng jotee yóbbu ko mu dem jàngi bu wàccee nga dem jëli ko soo ko sa doom sa biir ndax sàmm bakkanam mu ëpp solo foofu nga sàmm avenir am ñaareel ba ci topp mooy ma gis ne lu baree bari suñu ndawi réew dañu jël benn méthode boo xam ne jëmul kër te may laabiré di waxtaan di laabiré encore une fois def naa ci vidéo vidéo defati ci vidéo waaye maa ngi laabiré waat di fàttali sama bopp di leen fàttali di njëkkee nag ñi may njëkk fàttali mooy sëriñ ci nga xam ne dañoo jël wàllu fétiche nga xam ne ñu baree baree bari dañuy jël ay doomi aadama di leen sacrifier wala ñu propose ay nit ñu def sacrifice pour mën am alal ma seetlu ne samay ndaw ñu baree bari ñi may woo di ma proposé wala itam di ma woo di ma ñaanloo ci mel noonu mënuma ko compter ndax bariwaay bi ñu bari tey jii rek moo ci mujj am nañ ci gone goo xam ne mi ngi doon nekk ci beneen réew te ñu ëpp ñi lay wookat bokkuñu ñoo xam ne ñi ngi ci biir Sénégal waaye ci yeneen réew yi ñu war moom la ñu dëkk ñu gis ne loolu mi ngi indi problème ndax mooy indi lu bari disparition yi nga xam ne moom la ñuy gis ci xale yi ak yeneen yu yoole xale yi dañ ko jël léegi te xale yu ëpp yu koy def zéro ci dañuy commencé mooy duñu am sax fanweeri at yu mat koo ku la ci woo li mu lay njëkk a wax mooy dama bëgg am alal ci wàllu sacrifice wu yoole nangu naa joxe sama baaraam nangu naa joxe sama cër nangu naa joxe sama papa nangu naa joxe sama yaay ba ci nangu naa joxe samay sœur wala samay frère wala sax nangu naa joxe sama voisine boo xam ne gis naa ne doomam day focc man wala yu mel noonu kon nag li ma leen di wax mooy loolu jëru ko ndax yàlla bindul ñëpp ñu am alal te ñii nga xam ne ñoo leen di proposé yu mel nii li leen def mooy dañ leen di nax li ñu jëkk a def mooy dañuy yàq sa pas-pas sa diggante ak sa borom yàq sa diine ba pare dugal la ci guurte yoo xam ne foo mën a nekk di nga ko sa àdduna kon da jëru ko gis naa ci ay xale yu baree bari yoo xam ne def nañ ci ba pare bëgg di defaat retour ci yow di ñaan dimbal ngir ku leen dimbale ngir ñu génn ci pacte boobu am na ñoo ci xam ne yàlla dogal na ne dimbale leen mais am na ñoo ci xam ne ba fi may wax ak yow mënuñu dellu parce que nanguwul sax ñëw ci kër gi ndax dañuy tiit jàppale ñu ko defee dañuy dee ma leen di ñaan yéen ñi ngeen xam ne dugg ngeen ci wàllu sacrifice ba dugg ci def ay yoole wala lu mu mën a doon ngeen dem ba ci biir ngeen bëgg rëccu seen diggante ak seen borom boo la ñëwee dinañ leen dindil pacte bi te yàlla rek tax amuñu ci benn intérêt ma leen di ñaan yéen ndaw ñi itam ngeen gën a xam ne am am jarut ngay jël bakkanu jàmm rawatina say waajur wala say sœur te àdduna jaru ko te li nga xam ne moom ngay moom nga moom nga def sacrifice ba am ko sa wërsëg la xalaa kulli xaal bala ngay faatu nga ko lekk ni leen seytaan yi nag dina xëy sa wërsëg woowu la ñuy dajale boo noonu jund 30 ans ñu jël la 15 ans yi dajale ko yëpp jox la ko nga jund 15 ans yi des nga faatu te faatun bu ñaaw te boo deewee kenn mënu laa teree dem sawara gannaaw boo ko tuubul ma leen di ñaan di leen fàttali seen bokk sëriñ Bara Kebe ngeen gën a góor góorlu te bàyyi xel njaboot gi te xam ne alal jërut yéen yi wasalaamaaleykum